poroxaan tey laa fi ñëw tey suba demb laa fi ñëw demb laa fi door a ñëw tey waaye bu ma bu soobee yàlla bu ma ñibbee waa suñ dekk ñëpp dee leen yebal ñu ñëw fii ah poroxaan ñëpp a ngi fi siyaare naa maam jaara teen bi sax demaguma ca waaye dem rang naa boo bugg a jublu teen ba mu guddi waaye génn naa ndox nag boo yóbbu bugg a yóbbu waa suñ dëkk bu ma demee ñooña daa leen waajal ñu ñëw ñëpp ñu def woto ñëw fal ñëw Porokhane magal bi neex na magal bi neex na monsieur manque bi moom sonu jaawate yaay moom daa daa muñ sayu tënk si ak ndigal yi bàyyi tey yi yooyu sonu yaay nekk woon ci diggante maam ansay ba jur wax maam xaadimu waaw waaw da nga bu baax kay bàyyi coow bon bi bàyyi mees bi beneen tux ba naan di jël ay ndigal ko nu seen jaataay bu leen bàyyi jaay yoon kay moom ci bak Sëriñ ndax yow lii seen jaay dakaa jëf am ko dëgg ndigal maama ansa tëb ndigal gi di ay ndigal ba tey magal gi moom wax dëgg fa yàlla neex na lool kontaan nañ trop def nañ siyaar bu neex tey ñaan daal ay jukkoom ñu mën see tey ñaanal suñ mun taxaa yàgg fi lool am wér gu yaram. yagg bi man depuis 2011 la fi commencé ñu wa c'est normal dañu wara roy ci soxna jaara tey déglu suñ waxi wajuri nak parents mom moy lepp lépp roy ci mom dal dinañ am lu baax. wa magal gi mom niñ ko gisee moy sante yalla ma mouride yeb bëgg nañ magal gi mom magalo nonga yep la ndax magalu mouride la ndax maam li melne na ñun sunu sëriñ ñun maam Thierno Ibra Faty fi la gané aduna kon mam ñun ñi nga xamantene ño faré darul mohti maam ñun sunu fi sunu cër la da maam sunu lepp magal gi mom xéewal la go xamantene ne ne kenn ku nekk yaa koy yek sa xol dund wa nuy ñaan lepp luñ ci ñaan rek sa borom nangul nuko ko si mbéppum jullit doole ñuy ñaanal sunu khalifa bi nga xamantene moy seen sunu borom katanal ko te wéral ko maam soxna jaara kenn ku ci ne dañ daan wax naan namu namu daan doxé ak képp ku ci ku jaar ci ay tankam rek da nga da nga gis ndam li da nga gis résultat bi té di nga gis té di nga gis li nga xamante moy jariñ li nga xamante won tay tay mom fa mu jaar ak ba am limu am ba andi ñu tay sunu yaakaaru tay ak ëlëk gi muy Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante kenn ku maam gis nga limu def jaloore gi mu def waaw ni sante bu baax di gërëm bu baax bépp soxna bu fi ñëw rek war nga xam ne ne fii defaruwaay la sa royukaay moo fi ne di sant ñëpp di gërëm ñëpp si doole maam Thierno Ibrahima